ay jumtukaay moo xam gel jàpp masque mën a aar ndongo yi ak seen i jàngalekat ci daara ji wala sax fi nga xam ni moom la ñuy defee l'examen Pape Moustapha Diop nu gën ko xam ci papis ñu ci lu bëree bëri indil ko inspection de l'enseignement et de la formation bu département bu Mbacké que ñu indi suñu contribution indi suñu participation indi suñu jàppale ci secteur éducation bi nga xam ne fii mu toll nekk na période bu cruciale nekk na période bu bu b bu difficile parce que ñoom ñi ngi war a nekk di organiser ay cours

comme nous dit, de rendre un hommage un hommage à monsieur le président de la république Si vous nga que ne ni bii au Sénégal ba un budget de plus de 1000 milliards donc d'un ko force Covid 19. mettre à la disposition du ministère de la santé 64 milliards de budget pour faire face donc à la pandémie de Covid 19 mettre à la mettre en place un dispositif réglementaire muy loi yi nga xam te bii permettre nañ ministère de la santé. Jotay bu am solo Pape Moustapha Diop dal ci prox ndolou du sakku ci askan wi nu samonté digé yi nga xamné ministère de la santé ñu ngi koy def ngir nu moytu Covid 19 wayé sant bu baax président Macky Sall ak ministre Abdoulaye Diouf Sar ci jéego yi nga xamné ñu ngi koy def saa su né lépp luñu bëgg jëf mu jëm ci xeex Covid bi moy ci walu luñuy jënd muy garab wala matériel médical wala lu maa doon wala ci tabac, parce que centre de traitement il fallait ñu def si ay aménagement permettre de euh, maladie ni mu Le président de la république m'a accompagne ministère de la santé mën loi parce que chaque jour quelle que soit la commande quel que soit euh, montant bi nga xam te la garde médicale, jar matériel médical nous jar mën passer deux jours matériel est disponible nous mën ko mettre à disposition des malades loolu dañ ci rendre hommage président de la république ci féliciter aussi encourager le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ñi nga xam te ne bii tey lu mu man du nelaw chaque jour ñun au ministère les samedis et les dimanches nous sommes au ministère di liguey comme jour ouvrable depuis apparition maladie muy investir nek homme de terrain di dem ci hôpitaux di dem ci centre de traitement yi taxaw taxaway bi mat seuk ba tay Sénégal bokku na ci statistique li ñu pays yi nga xam dans le monde entier ñu ngi koy féliciter ci taxawayam bi mu am ci xex Covid 19 bi maa xam les résultats yi. mi ngi mi commencé feeñ macha allah ñu yaan bu jëm kanam mooy Covid bi mi ngi dellu ginnaaw ci réew mi cas yi tey par da ngay am plus de 1300 ay 40 ñooy positif ñuy ñaan yàlla ñu dem ba bu ñu defee 1000 tests mu nekk zéro positif ñi nga xam ñoo tëdd ñu leen di traité si centre de traitement yàlla wéeral leen te ñi nga xam te bi dalagu leen yàlla musul ci ñëpp Sénégal ñu mën a delluwaat ci yitte yi mën a delluwaat si liggéey bi comme ni mu waree. geste la ba nga xam te bii fi koy inscrire mooy wax naa ko inspecteur. ñun fi lañu ñu ci école primaire ak ak CM bi ba lycée dem ba dem université tey lépp li nga xam te bii geste bi fi ñu koy inscrire mooy accompagner éducation ci lépp lu mu mën a doon ci te suñu moyen may ñu ko suñu moyen fi mu toll amaguñu moyen yu bëri waaye lépp lu mu mën dañ ko mettre à disposition de l' éducation ak yeneen secteurs yoo xam ne soxla woon nañ ko dañuy ñëw ci contexte bi nga xam te bii je préfère même ne pas parler de politique man euh, toute chose en son temps Nous ci dynamique dynamique individuelle ou personnelle ce qui m'intéresse que moi, un homme. Mbacké yëpp un homme. ban ñu un def vraiment parce que sur le bi lépp dañ ko war est bi dara jagut ku euh, les situation individuelle vraiment de mobilité ma bëgg ñu nous ñun bloc pour l'intérêt de Mbaké. Mbaké, kay si si éducation di ay masque doug répondre Il y a non inondation qui koñ très dugg dafa taa tey bu ñu ñu bu ñëpp inondation yi état wala mairie dañu war a ñun fa ñu dëkk inondé na ñun de dëkk inondation

donc loolu tey geste bi bu ñu ci jógee ñu ngi dellu dajalewaat wutaat masque yu ëppati li ñëw jébbal ko sëriñ bi moo nekk suñu barkeel nekk suñu addee jëm ci màggal li ñeel rajo Kankan yi fësal ne diggante moom Pape Moustapha Diop ak Gallo Ba dafa am ay jafe-jafe mu weddi ko ba mu set wecc di wax ne laleen leen boole woon démb tey la ca wàllu gën a aay